بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لدين المبين وأنار لنا الصراط المستقيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة ولبرعصر العالمين وعلى آله وصحبه ذوي الردوان والتمكين ومن صار على نحجهم واقتدى بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله mbokki maxaarabatu sirk wal bidaa ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal borom bi tabaraka wa taala defal leen tawfiq alhamdulilah ñu ngi sant borom bi tabaraka wa taala bi julli si yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam ak ay ñooñam ak ay saxaabaam ak képp ku jaar seenu yoon ilaa yawmi diin ginnaaw loolu alhamdulilah mbokk yi ni ngeen ko xamee ñu ngi si dawra bi tey moo nekk juróomeeru bés bi incha allah rabbi ñu fas yéene dalal euh, al aq al imam euh, Mouhamadul Fadil Ndiaye xafidahullah ci téere bu am solo bi di xuturatul ibtidaa wa suumul bidaa bu fadilat cheikh al docteur Mouhamad ibn Saïd Raslan xafidahullah kon di dalal suñu imam al ustaad di ko wax fal yatafaddal maskuran majuran bi ismillahi taala di ñaan borom bi tabaraka wa taala defal ñu tawfiq ñu am ak dégg ak topp lépp loo xamante si ni dégg nañ ko fi ñu mën koo jëriñoo hada wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bismillahi rahmani rahim alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalaamu ala nabi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa wala ñoo ngi nuyu mbokki leen ziyaar ni yàlla subhanahu wa taala mu defee ñu tawfiq te defal leen ko donc ñoo ngi ñëw ci wala boog fi ñuy tàmbale tey mooy poñu fukkeel ak ñaar bi alwajhu athaani ashar mu dippeeku an al mubtadia bidaata ictiqaad yuxaafu calayhi an yakuna kaafira mooy ki nga xam ne dafa lambisoog ak li nga xam ne mooy bida te bida googu noonu mu lambisool ba ñu ca moom eh, ne ab mubtadia la mooy daa bokk ci ñooñu bida yi bidaa la boo xam ne la mu aju mooy fas-fas wala kooku le dañuy tiit ci moom moo daal di tàbbi ci li nga xam ne mooy aku kéefër ngi gën islaam wala dañuy tiit ci moom moo daal di nekk ab ab jiifër ñoo ko fiiree di ndax ngir na eh, ixtimaal bi am ci wax ju mel ni feeñ nekk tamit faaw mu xam ko ci waxi boroom xam-xam yi mooy suñuy wax ne ko def nangam wala ku nab tabbi ci sàngam kooku yéefar la lañ ci jublu mooy tabbi na ci kéefar loolu la ñuy eh, tuddee takfir al mutlaq mooy takfir ga nga xam ne jublu ñu ci kenn waaye lañ ci jublu rek mooy daal di wasfu mbir ma dina jàng tudde ko kafr takfiru nawa mooy dañuy wane na mbir moomu jëf jooju jëf la xam ne mën naa génne nit ki ci eh, ci lislaam ah, moo tax soo koy tekki ci wolof yenn saa yi soo ne tafli ab la ka nga xam ne moom euh, laalla yenn mbir yi euh, wala yenn détails yi dégg ko ci waxi borom mën naa jàpp ne kon ko tàbbi loole doon yéefar ca ca saas waaye soo ko tekkee lu wuteeg li nga xam ne moom ni mu niñ ko teggee mooy ne ah ku def lii de tabbi nga ci yéefar gu mag ci la nit ka dina mën a xam ne kon de tabbi ci yéefar tekkiwut nit ka daal di doon li nga xam ne mooy ak euh, wala tabbi ci kéefar tekkiwut nit ka daal di doon li nga xam ne mooy mooy yéefar kon fii nii liñ ko dippee mooy ne li ñuy ragal ci nga xam ne mooy am mubtada ka nga xam ne bidaa am nag dafa aju ci li nga xam ne mooy pas-pas euh, ndaxte lii di bidaa aju ci pas comme ni mu ajoo ci li nga xam ne moom mooy mooy jëf ka nga xam nag bidaam dafa aju ci pas-pas moom kooku dañoo tiit ñoo ragal ci moom mu daa di naam tabbi ca kéefar goo xam ne mën na koo génne ci li nga xam ne lislaam wala ñu tiit ca moom mu doon bi yéefar mu daan ne lu tax mu li anna ulamaa leen mu ne li anna al ulamaa min alsalafi al awal wa gayrihim ixtalafu fi takfiri kathiri min firaqi al mubtadia kal xawaarij wal qadriya wa gayrihim mais ndax yi ne ñooy boroom xam-xam yi jiitu ci boroom xam yu mag ya ci nga xam ne ñooy sunu mag ñu baax ñu jiitu ak ñeneen ñi ñëw seen ginnaaw ak ñeneen ñoo dut ñoom dañoo wute wute nañ ci lu bari ci daal yi ay mbooloo yoo xam ne mbooloo yi bidaa lañ ñu fi mel al xawaarij wal qadariya wa gayrihim fii ne am na benn sew-sew bu ci nekk mooy ne su fekkee ne boroom xam-xam yi dañoo wute ci takfir ci takfir ab mbooloo eh, ci mbooloo yi bidaa yi loolu lañ ciy jublu mooy ne mbooloo moom lañu tàbbi moom kiifar gu rëy la léegi na ndax mbooloo boobu noonu dañuy jàpp ne mbooloo yéefar la mooy du dugg ci juróom-ñaar fukki kuréel ak ñett yi nga xam ñu bokk ci islam wala da cay da cay dugg loolu lañ ci mooy su fekkee ab mbooloo dañoo wax ne mbooloo moom mbooloo moom ñooñ ay yéefar lañ mooy takfir boobu noonu mooy takfirul firaq loolu la muy dëppool ci liñ tuddoon takfiru muayyan lay dëppool luñ ci jublu mooy lan mooy képp koo xam ne yow ci mbooloo moom mi ngay askan boobu li as ci mooy ab yéefar nga mu ngi mel ne rek kuy askan boppam ci li nga xam ne mooy an nasraniya wala al même atte ngam mooy su fekkee ne dañoo ne ah, mbooloom sangam moom ay yéefar lañ moo dañ leen a mbooloo moomu ku ci askanale sa bopp askanale sa bopp ci lislaam ci ab mbooloo yéefar nga askanale sa bopp même atte bi nga xam ne moom la ñi nga xam yeneen mbooloo yéefar yi ñëpp dëppoo am yooyu moom mbooloo moomu moom la ah, moom la am li ma jublu ci mbooloo yi yëpp dëppoo am mooy mel ne al yahuda ah, wa nasara kon fii nii su leexee ne boo ci yenn mbooloo yi ndax ay yéefar lañ wala du ay yéefar lam ci jublu mooy ndax mbooloo moomu kon mbooloo moom day dugg ci li nga xam ne mooy mbooloo yi nga xam ne ci biir islam lañ nekk wala dafa génn ci mbooloo yi nga xam ne wala ba bokkut ci mbooloo yi nga xam ne bokk dañ leen di jàppee ne ay mbooloo yu mubtadal waaye lislaam lañ nekk lañ bokk loolu tekkiwut ne mbooloo yooyu bokk di sam yenn saa yi mën nañoo tàbbi ca kéefar loo xam ne kéefar lay lay eh, eh, lay doon waaye nag mbooloo yoo xam ne dañoo gis ne Euh, ñoom seen kéefar yooyu am nañ ci ay taxawaay yoo xam ne moo tee ñu mën leen a génn ci li nga xam ne moom mooy euh, moom mooy lislaam kon li nga xam ne mooy takfiru euh, alfiraq wuteelem mooy takfiral al mutlaq yenn say takfiru mutlaq mën nañ ko def ci affaire ko mooy daal ne ah ku daal di gëm sangam de ko am pas-pas sàngam yéefar nga loolu bokkul ak takfiru firqa boobu donte loolu lañ gëm waaye soo nee nag firqa sàngam moom ay yéefar lañ boobu nag moom takfiir moom daf taayin la ci am may taayin nga firqa boobu na yéefar lañ kon su boobaa firqa boobu yow ci say wax bokkutum ci li ku ci askan la boobu bokk ci li xam sa asl am leneen luy wane yaa ngi ca wane ci lislaam wuteeg nga xam ne firqa yi nga xam ne boog dañ leen askedal ci li nga xam ne mooy lislaam dañ tuddoon firqa yi nga xam ne borom xam bi dëppoon nañ ci bañ leen yéefarloo suñu jëlee ay zaydiya masalan dangay gis ne ku askane sa bopp aslam mooy jullit la ba keroog ñu ngi ci moom nag lu feeñal lu mën a tax ñu leen koy waaye koo xam ne dañoo askan bopp ci li nga xam ne mooy ak kéefar comme yenn firaq albataniya ñooñu koy askane sa bopp te ñooñu lay astu ci mooy yéefar nga ba keroog ñuy gis loo xam ne da lay dugal ci li nga xam ne moom mooy euh, moom mooy euh, moom mooy lislaam mooy ne boo xam ne dañoo wute ci li nga xam ne mooy takfir yenn ci yenn mboolooy bi day bokk na ci ñooñu li nga xam ne moom mooy euh, al alxawaarij alxawaarij à chaque ne uti gam ci ñoom ndax yéefar lañ du euh, wuute gu euh, gu siiw la ci li nga xam ne moom mooy borom borom xam yi waaye day zaahir ci ne mooy waxu saxaaba yi day zaahir mooy ne ñoom daaw ñu takfiir am mooy xawaarij yi comme ni mu ñëwee ci yenn asar ak li nga xam ne moom moo feeñal la seen jëfluwaay ba bañ xeex ak ñoom bari leen rawat na Abi Taalib na nga xam ne noonu la jëflanteeg ñoom wute naa ni ñuy jëflanteeg yëf am yeneen boo xam ñu gis ne ahadis yi ñëw eh, ci eh, di feeñal naan yamruquuna mina diin kama yanqusu mina ramyi ñu ko ci zaahir ba ne yéefar bokk na ci gën a siiw ci ñuy takfir xawaari ci borom xam yu mag yi eh, kii di ah, ah, al-Buxaari moo noonu nag si ah, al-qadariya wa gayrihim donte al-qadariya borom dañuy ci ña xam ne ñoom ñooy. ca seen ca la ñu weddi ci li nga xam ne mooy mooy qadar ñi nga xam ne ñoom ñoo weddi li nga xam ne mooy ñoo ñooñu ay yéefar lañ xam mooy weddi li nga xam ne moom mooy ba la ca qadar mooy ilm ñooñu ay ay yéefar lañ ci yeneen détails mooy ñëw ci al qadar intaa ñu wuti ci ñi nga xam ne ñooy weddi li nga xam ne moom mooy yenn maratib yi xam ñoo ne qadar wala dalla dalik waaye loolu lépp lu muy tegte wa dalla dalika zahiru qawli taala wala boog la nga xam ne moo tegtale loolu mooy li feeñ bokk ci waxu yàlla sunu borom suuratul an'aam inna alladina farraqu diinahum wa kaanu shi'a lasta minhum fi shay adoon ñi nga xam ne ñoom ñoo tàqali ko def seen diine daf koy pàcc pàcc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamal na ko ñoom yow bokk ak ñoom lenn bokk ak ñoom euh, dara ak waxu yàlla sunu borom yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh xan aay bi da ko tax wàcce yéefar la mooy bis bi nga xam ne ay euh, kanam dañuy feeñ euh, kanam yu weex dañuy weex ay kanam dañuy dañuy ñuul mooy jour bis bi nga xam ne kanam dañuy assombrir ak kanam yoo xam ne euh, dañuy gis kalaata ci kanam yooyu fii nii ay saxaaba comme la lu bees daan ne liñ jublu ci ñii mooy lan mooy ahlu sunna mooy yowma tabyadu wujuhu ahli sunna ak yowma taswad wujuhu ahli bida foofu ni ñu koy jëkk a déggee mooy wax Abdul Baas boobu jiitu na ci téere bi euh, mooy lañ cay njëkk Euh, jublu wala ñi koy njëkk a dégg mooy ne lii di ahlu sunna moom wala turbawu wala tuddee ay nit ahlu sunna mi ngi tàmbalee ca sahabatu sahabatu kiram ñu mun koy déggee kon salaam aay bi ci ñoom la wàcc ci yéeféer la wàcc kon ñi nga xam ne ñooy nekk ci bida am na ci ñoo xam ne ay yéeféer la ñuy euh, la ñu doon donte li nga xam ne mooy euh, mutaqarrir fi usul fiq mooy al ibra bi umumi lafzi laa bi xusuusi eh, sabab de mën nañ jël aaya bu wàcce ci yéefar jox ca jullit bi la nga xam ne moom la ca moom la ca moom la ca moom li borom xam yi dàq saxaaba yi dàq ko mooy jël aaya ba jox ko jullit bi la nga xam ne noonu lañ ko joxe yéefar ñu la ca yem loolu mooy yëfi xawaarij yi ay su fekkee ne aaya bi daa loo xam ne jullit bi da ca ishtiraak li nga xam ne moom mooy yéefar ñu jël ca la nga xam ne moom la ca bokk ñoom jox ko ko la mu bokka ak julitam la ci des nañu bakkoo li nga xam ne moom mooy euh, yéeféri ba tey cheikh mu ne waqad xakama al ulama bi kufri jumla minhum kal batiniya wa siwa wa siwahum mu ne naka naaw nag boroom xam ñoom atte nañ mooy daal di takfir ñenn wala bokk ab mbooloo ca yenn ci mbooloo bi day bokk na ci albatiniya albatiniya dañ koy fekk eh, ci alqaramita dañ koy fekk ci eh, arrafida dañ koy fekk ci ñenn ci ñi nga xam ne ñoom ñooy seen bopp ci eh, ci tasawuf nonka noonu dañ koy fekk ñi nga xam ne mooy almuta almutafalsifa Cheikh Islam Taymiyya ci majmul fatawa radd na ci lu bare bare bare firaq yi daal di cay Eh, xuluqul baatiniya daal di cay tafsir ak eh, seen i gëm-gëm ak ñi nga xam ne ñoom ñooy seen eh, i seen i seen i ruus seen i seen i bokk nañ ñu gën a siiw ci ñi xam ci ñi gën a dundal li nga xam ne mooy xuluqul baatiniya ci mel ni ci njëli ci wàllu tasawuf ci mel ni ibnu ibnu arabi wala ki nga xam ne moom mooy moom mooy xallaaj ak ñenn ci ñoo xam ne ñu siiwul ci seen yoon ñooñu la chekk ne ku gëm loolu albataniya eh, ay kéefar du ko féete du ko féete kaw mu ne wal ulama ida ixtalafu fi amrin hal huwa kufrun aw la fa kullu aaqilin yarbau bi nafsihi an yunsaba ilayhi aw an yunsaba ila خطة خصف كهذه بحيث يقال له إن العلماء اختلفوا هل هو كاف أو ضال xayru kaafir mu ne nag su fekkee ne borom xam-xam mi dañoo wute ci benn mbir wala boog wute ci ay mbooloo ah, wala wute ci ay mbir ndax lii bii kéefar du kéefar bépp borom xel yow sa sa yaram day da ngay daw loolu wala boog di nga di nga di di nga bañ ñu daal di nga moytu ah, di nga seexlu ñu lay askanale ci askanale ci loolu nga xam ne lan la ci wax mooy ne yow dañoo yonente ci ndax bi yéefar ga wala da nekk ci réer te ne ko yéefar suñ la xee ne mboolum sàngam dañoo wutee ne cab yéefar la ndax ay yéefar lañ loolu doy na sëkk nga daw mbooloo moom kon li gën a ndaw ci mbooloo moom mooy ne ci réer lañ nekk la ñuy xool kay ndax dañoo doon yéefar wala ba tey ay juddit lañ yoo xam ne dañoo nekk ci li nga xam ne moom mooy euh, moom mooy moom mooy moom mooy dañoo wutee ci ñoom wala na la su fekkee nag aw yuqaalu inna jamaa min al ulama qaalu bi kufrihi jaasimin rawatina su fekkee dañ la wax ne ah borom xam-xam yi dañ ñoom sax ñoom dañoo eh, atte ci ñi moom atte goo xam ne dañ caa moom loolu dañ caa moom sanga moom borom dañ ci atte ne yéefar nañ ci atte goo xam ne atte gu ñu dogu la boobu day gën a teeraw nit ki daal di daw loolu mooy tëndiku lool ñu koy askanale ci eh, eh, ci ci mbooloo yooyu te gis ne lu ëpp ci mbooloo yi nga xam ne seen bidaa ci la tax. Euh, ñu daal di askan bi dawa seen bi day dellu ci li nga xam ne moom mooy pas-pas te gis ne da ngay fekk boroom xam-xam yooyu wute ci ñoom euh, ci ak yéefarloo leen yenn say ñu yéefarloo leen yenn say ñu daal di woon ne ñi nga xam ne ñoo xam ca ñooñ ay la xam ne ñoom ñoo nekk ay muxallidoon duñ ay yéefar lu dul dañ leen a euh, def iqaamatu iqaamatu yenn say nag ñu daal di dogu ca ne ñii de ay ay yéefar mën na jël ba misaal suñ jëlee li nga xam ne mooy chia lan mooy chia borom dañoo dëppoo ci ne ñi nga xam ne ñooy ay nusariya ay yéefar lañ ittifaaq donc képp ko xam ne dañoo gis ne fala askan boppam kooku li as moom mooy mooy yéefar la ñu dëppoo jinaay zaydiya dañoo nekk ci li nga xam ne mooy yemen ñii de ah, Nusayr yi nga fekk ah, mbooloo mu bari ca ca Syrie ci ñuy wax nii da fekk mbooloo ca Iraq na am mbooloo mu xaw a ndaw ca ca Iran ah, ñooñu dañoo dëppoo jinaay yéefar lañ suñ jëlee li nga xam ne mooy zaydiya am nañ mbooloo mu takku fa nga xam ne mooy mooy yemen mbooloo nañu dëppoo ne jullit lañ suñ jëlee ar-Raafida al-Isnaa Ashar bu la daal di wutee ca ñoom ne ay yéefar lañ wala ay jullit ñii yéefar loo la ñii ne ay jullit ñii daal di def tafriq mooy daal di takfir ay ulama minhum ñi nga xam ne ñooy ne muqalliduuna ñu ne balaa ñuy takfir foo def li nga xam mooy iqaamatu iqaamatu lujja ala babi misaal ci wute yi am ci borom xam-xam yi ci li nga xam ne mooy yenn euh, yenn mbooloo yi. الوجه الثالث عشر أن المبتدع يخاف عليه سوء الخاتمة والعياذ بالله لأن ما يبنو فك fukkeel ak ñett bi mooy kii di xam ne ab la ki xam da bañu atte ci moom nag la kooku la ragal ci moom mooy mu am mujj gu ñaaw yal na yàlla subhanahu wa taala musal mu li anna saaxiba albida murtakibun isman wa aasin lillahi xatma وأن مات مصرا على المعصية يخاف عليه لأن المبتدع مع كونه مصرا على منهي عنه يزيد على المصر بأنه معارض للشريعة بعقله غير مسلم لها في تحصيل أمره معتقدا في المعصية أنها طاعة حيث حسن ما قبه الشارع وفي الطاعة أنها لا تكون طاعة إلا بضميمة نظره فهو قد قبح ما حسنه الشارع ومن كان هكذا فحقيق بالقرب من سوء الخاتمة illa ma sha allah mu ne ki nga xam ne mooy mubtada nag moom li dooral loolu ñu yagal ci moom li nga xam ne moom mooy mujj gu ñaaw mooy ndax ka nga xam ne moo nekk ci bidaa kooku dafa tàbbi ci li nga xam ne moom mooy bidaa dafa tàbbi ci li am mooy bakkaar ci li amul sikki sikki sàkk kooku ku mooy boroomam la ci amul sikki sàkk kooku tamit la su deewee ci loolu naam dee na ci ne ci wëy ci li nga xam ne mooy mooy yàlla sunu ah, sunu sunu borom te képp koo xam ne kon da ngaa dee fekk ne yaa ngi eh, wëy ci mooy yàlla sunu borom la fekk ne dañuy tiit ci dañuy tiit ci say ci say eh, ci say mbir ndaxte kii di moom ànd ak ne dafay wéy ci la yàlla subhaanahu wa taala di tere daal li bidaa mooy doy waar mooy bidaa nit ka day foog ne la mu nekk lu baax la kon kooku su ko yàlla eh, dimbaliwu tawaaliban dafay wéy ca loolu mooy la jàpp ne moom da koy def ngir am yàlla sunu ah, sunu borom kon dafay wéy ca la mu nekk te la mu nekk li nga xam ne mooy yàlla te la chakk ne ku daal di sax ca mbir eh, mbir moomu soo matut ca ngay Eh, ca ngay ca ngay faatu eh, te ku faatu ci eh, mooy yàlla sunu borom la fekk ne loolu moom mooy li nga xam ne mooy mujj gu mujj gu mujj gu ñaaw dañuy gis ne mu ne day delloo ki nga xam moo nekk ci bidawam dafay dolleeku ci mooy ne mangay ngay wuy ca la nga xam ne yàlla subhaanahu tere da cay dolleeku ne moom dafay du mooyu nga xam ne moom mooy dafay wuteeg li nga xam ne mooy charia teg ko ci li nga xam ne mooy xelam te kooku du jébbalu ci la nga xam ne moom la charia euh, daal di daal di daal euh, di digle waaye da cay dool yi jàpp ne moom mooy yàlla googu mu nekk day jàpp ne moom ak ak ak topp yàlla sunu sunu sunu borom la kon loolu la muy mooy lan ko kon la yàlla ñaawal moom da koy rafetal naam kooku moom la yàlla subhaanahu wa taala ñaawal daal di koy ŋaññ moom dafay tagg loolu daal di koy jàppee noo Euh, lu euh, euh, lu rafet la ku mel noonu nag la fekk ne kooku la mu jege mooy mujj gu ñu mujj gu ñaaw yal nañ ci yàlla subhaanahu wa taala daal di daal di musal te loolu mooy li nga xam ne moo wutee ki nga xam ne moom mooy mooy yàlla sunu boroom ci la nga xam ne du bidaa ak koy mooy yàlla sunu boroom ci li nga xam ne bidaa koy mooy yàlla sunu boroom la dul bidaa kooku xam lii mooy yàlla la Euh, banneex bakkanam ba ko cay téye mun naa def ay effort ba yàlla subhaanahu wa taala ko cay daal di ko cay euh, euh, génne waaye ki nga ne moom moo jàpp ne moom li mu nekk nii dëgg la day dëppoog leen mooy bànneew bakkanam ndaxte lépp loo jëlu ci charia bi da ci jugu ci charia sa bànneew bakkan nga ci topp waaye da cey nam nag seytaan gëmloo ko lii mooy jaamu yàlla sunu borom mu nekk ca daal di cay wéy wéy ci mooy yàlla suñu borom wéy ci jël mooy yàlla googu def ko topp yàlla wéy ci di opposé wu charia la nga xam ne moom la digal teg ko ci li nga xam ne mooy xere na ma gis nam gu ah, gu rafet ca taxsin nga muy def ca a googu noonu ah, wéy ci li nga xam ne moom mooy ah, jël li nga xam ne mooy yàlla def ko li nga xam ne moom mooy moom mooy toog kooku la ñuy tiit ci moom mooy ne daal di mujj mujj xam ne mooy mujj gu gu ñaaw mu ne al wajhu isbidaadul wajhi fi l axira kon nga xam ne mooy kon fukkeelu poñ bi ak ñeent mooy ne ka nga xam ne moom moo nekk ci bidaa la nga xam ne mooy kanamam dafay assombriru la nga xam ne moom mooy yowm alqiyam li qawlihi taala yowma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh mooy bis ba nga xam ne naama kanam ya dañuy leer ak kanam ya dañuy ak yenn pa kanam yoo xam dañuy assombrir mooy bëgg di traduire li mooy isbidad ak li mooy ñuul ñuul wute nag li nga xam mooy obscurité donte la xam ne mooy lay feeñ ci la nga xam ne moom mooy ci xis suñ gisee l'obscur dañ koy dañ koy askanel loo xam ne dafa dafa ñuul waaye nit mun naa ñuul nekk koo xam dafay dafay leer kon leer nekkut li nga mooy naqiidu li nga xam ne mooy Euh, obscur waaye dafa wekk ne ci langue yi ñuy xam yépp dañuy gis ne obscurité dañ koy euh, laambiso li nga xam ne bu dañ koy nduróole kan fa moom mooy euh, moom mooy ñuul ala kulli xal ci te li nga xam ne mooy lu leer ñu daal di koy nduróoleeg li nga xam ne moom mooy moom mooy lu weex waaye lu weex nekkul loo xam ne lu leer lu weex mën naa nekk lu obscur comme lu ñuul mën naa doon loo xam ne lu lu leer la ndax lii de obscurité maanawi la lii du ñuul xissi la ah, maanawi war a nit ñi yenn saa dañuy jël loo xam ne maanawi la loo xam ne si abstrait ñu jéem koo xool la gën a jege ca ñoom ci li nga xam ne moom mooy lu ah, lu ah, lu concret ñu daal koy nduro rek nduro rek allahu allahu alam la yawma tabyaddu wujuh mooy bis bi nga xam ne kon ay kanam dañuy leer wa doo wujuh mooy bis ba nga xam ne ay kanam dañuy eh, dañuy lëndëm obscurité nga xam moom mooy mooy lëndëm lëndëm du ak ñuul eh, lëndëm du li nga xam ne mooy lu mooy lu ñuul eh, donte ci encore une ci lu lëndëm ci sunu conception ci li ñu gis xestan yi jàpp ne lu lëndëm mooy lu mooy lu lu lëndëm mooy lu ñàkk li nga xam ne moom mooy lumière naam li nga xam ne nag moom moo leer tamit nekkut lu weex waaye mooy loo xam ne Euh, dafa wuteeg li nga xam ne mooy lu lëndëm moom laa tuddee obscurité wa an abi ghalib qaala raa abu umama ru'usan mansuba ala daraja masjid dimash fa qaala abu umama kilaabu nnaar charru qatla taxta adiimi adiimi samaa xayru qatla man qataluuh thumma qara يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الآية قلت لأبي أمامة أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربعة حتى عد سبعة ما حدثتكموه قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقال ابن كثير رحمه الله قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يعني يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة قاله ابن عباس رضي الله عنه mu ne ci waxu yàlla sunu boroom gi kon bis ba nga xam ne kanam ya dañuy leer ak bis bi nga xam ne bis boobu tamit am na kanam yoo xam ne dañuy dañuy lëndam mu ne kii di abi ghalib mu ne dama gis kii di abu umama wala boog abu umama boog dafa gis ay bopp yoo xam ne dañ leen wékk ca la nga xam ne moom mooy masjidu dimax ay xawar gi yoo xam ne dañoo atte ca ñoom ba leen di rey ah, wékk foofu abu umama daan ne ñii ñoom ñooy ah, xaju xaju li nga xam ne mooy euh, ñooy xaju safara yi lii mooy kilaabu naar bu xam wute nañ ci lan ci yàlla yonent bi salaam jublu mooy naka nay nekkee xaju euh, xaju ahli naar am nañu jàpp ne leen di soppi ay xaj ci safara ñu gis ne liñ jublu mooy suufe ga ñuy suufe safara nekk ñu gën a yées ñoom ak yeneen yi wax yoo yi wax nañ ko ci nañuy tekkee kilaabu naar ala kulli xaal wasfu la xam ne bon la bi won ne mën nañu xawaarij mën nañ bu dangereux la bu très euh, bu bu doy waar la mu ne ñii de ñoom ñooy ña charru qatla taxta dimi sama ñooy ña yées te ña ñu rey cëkk ci ci nga ne mooy ci kaw suuf wala bokk ci ci suuf mooy ñi xawaarij yi mu ne te mooy que gën ca ñañu rey daal ka nga xam ne xawaarij yi rey na la loolu fadila la loolu li nga xam ne mu mën na qabala du maslaba mu daal di daal di jàng nag ko yàlla sunu borom bis ba nga xam ne ay kanam dañuy leer ak ay kanam yoo xam ne dañuy dañuy dañuy lëndëm Euh, mu ne ma wax ki nga xam ne moom mooy abi umama ne ko ndax li nga ko dégg ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko dégguma ko sax benn yoon wala ñaari wala ñetti yoon wala ñeenti yoon mu daal di lim ba juróom-ñaari juróom-ñaari yoon kon moo xam ne ko lii dégg na ko lu bari ci yenente bi te nii ma ko déggee ko yeneen bo saxaaba déggee daal di koy nettali mooy wasfa ñi nga xam ne ñooy xawaari ji ne kilaaw ahli naar naam euh, waaye li nga xam ne mooy jubluwaay mooy dafa ñëw fii daal di tuddee ahlul bida ne leen li nga xam ne ñoom ñooy ahlul bida yi ñoom dafa leen a xam ca ñoom wala boog dafa leen a wasf wala boog jël aaya bi daal koy teg ca ñoom mooy lan bis ba nga xam ne kanam dañuy lëndëm ak kanam yoo xam ne dañuy dañuy leer mu jublu ci kanam gu lëndëm pour ñi nga xam ne ñoom ñooy mbooloo mii di mbooloo ma ah, mbooleem mbooloo bi daal te ñu daal di tuddoon ci kaw ne borom bi wute ci seenu ko eh, kéefar ak li nga xam ne mooy ndax ay yéefar lañ wala ba tey ay eh, ay jullit lañ su fekkee dañoo jàpp ne yéefar lañ du am iskaal lan ci ne kon ñoom dañuy dugg ci ay bi la fii eh, ci ne ndax yéefar lañ te bis ba nga xam ne mooy kanam yi lan na mooy kanamu kanamu yéefar lañ su fekkee ne dañoo kon jàpp ne ay jullit lañ kon ñu gis ne kon lii dafay général ci bépp mbooloom bi daaka ne atte bii nii mi ngi tege seen wala bokk waayit bii nii mi ngi seen kaw mooy ne yow man kanam dañuy bokk ñi nga xam ne seen kanam dafay ah, dafay lëndëm allahu alam mu ne kii di abu isa mooy tirmidi nee na xadis bi xadis bu xasan la ibnu kathir daa di indi ci waxu yàlla sunu borom ba tey ca aaya bii nii yowma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh mu ne lii de yowma alqiyaama la mooy yowma alqiyaama la ay kanam yu leer ak ay kanam yu yu lëndëm mooy bis nga xam ne kanamu ahlu sunna wal jamaa dafay doon kanam yu kanam yu leer waaye lim mooy kanamu ahlul bidaa naam dafay doon kanam yu kanam yoo xam ne kanam yu lëndëm la mu daan ne lii la ibnu abbas eh, eh, daa di eh, daa di wax mooy kon di suñ ko jëlee ci d'une manière générale mooy kon day gis ne ci wax jii nii ahlu sunna mooy ñu nekk ci sunna ahlul bida mooy ñu wuteeg ñoom kon ñoom seen kanam dafay lëndëm xasba bidaatihim xasba li nga xam ne mooy kufr ga nga xam ne tamit eh, yéefare tàbbi nañ ca allahu allahu aalam ñu alwajhu alxaamisa achar mooy fukkeelu pañ beeg juróom mu ne subutul baraa min ahlil bida mooy ne li mu saxe ci dañ ci li nga xam ne mooy waa waa bida fi mu jëm ci aqidatul wala wal eh, wal bara mooy fii nii kon li muy ñëw mooy dañ ku ñu war a dañ ci li nga xam ne mooy euh, waa bidaa mu ne yàlla subhaanahu wa taala wa suratan am inna alladina farraqu diinahum wa kaanu chia ña nga xam ne ñoom ñoo jël seeni diina da koy tàqale daf koy pàcc-pàcc lasta minhum fi shay kon fii nii dafay sama yonent sallam dafa yàlla daf ko innocenté ci ñoom daf ko deñal ba mu sa ci ñoom yéen yénte bokkul ak ñoom bokkul ak ñoom dara dafa désavoué ci ci ñoom wa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam rajul ala diini xalili falyandur ahadukum man yuxaalil ci xadis waxaan abu daawud baan kusoo lagaa tirmidi tirmidi xadiisun xasanun qariib mu ne nit ki moom mu manca diine ka muy àndal xaritam su fekkee noonu lañ koy euh, tekkee kon nag yow nit ki xoolal ka ngay xam ne moom nga jàddi ko def li nga xam ne xarit fi ñu koy tàmmee mooy kon su fekkee ne da ngaa koo xam ne ci bida la nekk yaa moom yenay yenay yem kon loolu cay jëlee mooy war gi moom war nga daal di wuuteeg euh, moom daal di koy euh, désavoué ci moom dañ ba set wecc ci ci moom mais loolu tax Abdullah ibn Umar ko xabaaree ñi nga ne mooy ahlu al-qadar ba ñu tàmbali génn la mu wax ne daneen soo leen dajeeg ñooñu wax leen ne man dañ naa ba set wecc ci ñoom ñoom it dañ leen ba set wecc ci ci ci ñun wala boog ci ci man fii nii fu ñu benn sew-sew bu ci nekk mooy dañuy gis yenn saa yi am nit dañuy taxaw ne yii ñu ñëwee day dellu ci Eh, ahlul bida yi nga xam ne seen bida kiifar la chaque année dañuy tàqale ñi nga xam ne ñoo tàbbi ceeg ahlul bida nga xam ne ñoom ay yéefar lañ jàppee ñi nga xam ne ci lislaam lañ nekk waaye suñu albara alwala walbara moom ci lépp loo xam ne dafa wuteeg la yàlla subhaanahu wa taala dindi xasba loolu dañ cee war def ne mooy eh, albara ñi nga xam ne ñoo tàbbi ci li nga xam ne moom mooy bida donte bida génn islam ñooñu tamit dafa am eh, ak denc gu ñu war a denc denc ca ñoom dañ googul achakin dul xasba seen bida naam Euh, ak tamit yeneen mbir yoo xam ne ay dawaabir am ko war a muraat euh, selon bidaa googu noonu du yem ak bidaa ka nga xam ne moom doon ci yéefar waaye nag lii moom dañ ba sar wecc ci bidaa ci képp koo xam ne dañ la askana li nga xam ne mooy bidaa mbaraa googu noonu faw rek nit ki daal di koy jëfee euh, jëm ci jëm ci ñoom allahu aalam mu ne wajhu assadis achar ann almubtadia tuxsha alayhi lfitna juróom-benneelu poñ bi mooy ki nga xam ne moo tàbbi ci bida moom kooku dañuy ragal mu tàbbi ci li nga xam ne moom mooy al al fitna fitna kooku mooy lan mu ne jaa rajul ila al imam malik rahimahullah fa qaala ya aba abdillah min ayna uhrim qaala min dil xulayfa من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة قال أي فتنة هذه إنما هي أميال أزيدها قال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وهذه الفتنة التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله هذا هو قول الشيخ تفسير الآية هي شأن أهل البدع ووقاعدتهم التي يؤسسون عليها بنيانهم فإنهم يرون أن ما ذكره الله في كتابه وما سنه النبي صلى الله عليه وسلم دون ما اهتدوا إليه بعقولهم mulaaj dafa ñëw gis ki nga xam ne mooy imaam malik rahimahullah mu ne ko yaa aba abdillah mooy kun ya imaama imaam malik naam mooy kuniya tamit kii di imam ahmad di kuniya kii di imam ash-Shafi rahimahullah mu ne ko yaa aba abdillah fan lay ixraame mu ne ko defal sa ixraam fa nga xamee ne mooy dil xulayfa fa nga xamee ne fa la yonent bi salaam doon ixraame waaye da ko ma dama bëgg a ixraame ja tàmbale ci li nga xam ne mooy masjid bi min indil qabr ca fi nga xam ne fa la bam bi la bëgg a tàmbale sama ixraam Euh, Malik na ko bu ko def damay ragal ci yow li nga xam ne mooy fitna mu ne ko ban fitna la mën a nekk ban fitna moo mën a am ci ma dolli ay mètre allahu akbar lii qaayida la boo xam ne ko jàpp daal di xam lu bi daal daal di koy wecc mooy ci lii la ñuy jëfandiku mooy chaque fois daal di jàpp ne la def yiw la mooy ne fii la yonent bi sallallahu alayhi defee man ma yokk ca doq ca ay jéego loolu lu mën a doone li nga xam ne mooy lu baaxut la lu mën a doone li nga xam ne moom mooy Euh, mooy fitna man may ñëw ci bisu gàmm may jàng alquran di fàttali sunna yeneen bi sala loolu lu mën a doonee li nga xam ne moom mooy euh, moom mooy bida damay toog ci jàkk jël mbalaan wër ko di tudd laa illa loolu lu mën a doonee li nga xam ne moom mooy euh, moom mooy bida lii dañ koy dégg foo toll ci nga xam ne ñoo indi ñoo indi bida imam Malik daat na ko ban fitna moo gën a rëy nga gis ne yow jiitu nga yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ngëneel goo xam ne moom dafa gàccandu loolu feet na gën góor yi mooy nit ki daal gis ne moom mi ngi def ab ngëneel goo xam ne yen du ca gàccandu ndax ke def bidaa jàpp ne lii nii kon moom ak yiw la te mu gis ne yiw googu yeneen bi salaam defu ko ca moom mu jàpp ne kon ab yiw la gu muy def bi lisaani xaalihi la muy wax dafa mooy laazimu jëfam ja mooy lan wa lisaanul xaal ablaq min lisaan ibn qaal mooy lan ah mooy de lii man maa ngi def ak ngëneel goo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di tàggatal ko ndax imma yiw la boo xam ne yonent bi xamoon na ko wala fit na gën a ko rëy fi ñaan ndaxte nit kay jëf bidaan mooy dafa jàpp nañu def yiw la su fekkee nen na ko bidara mooy na kon sax na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ko def ko kon ñaari mbir moom mu daal di xam ne kon yonent bi mu daal di jàpp ne yonent bi loo xamu ko woon moom xam na lu yonent bi xamul woon loolu fitna gën ko rëy nit su jàppee ne mu ëpp xam-xam yonentam loolu fitna gën ko rëy wala mu daal di xam ne yonent bi sallam xamoon na ko waaye defu ko woon kon dafa jàpp ne yonent bi daa amoon xamoon nëpp yiw daal di gàjtandu ci moom mu daal di gën a xeeri yonentam loolu dafa tax fitna gën na koo gën na koo rëy kon imaam Maalik na ko ne fitna gën naa rëy nga jàpp ne yow jiitu nga saw yeneen da ci li nga ab ngëneem gam da caa da caa gàttandu man ko man dégg naa yàlla subhaanahu wa taala day wax ci alquran suratu nuur ñi nga xam ne ñooy wuteeg li nga xam ne moom mooy ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay mbiram bokk an amri li gën Eh, matale mooy tegee ko di wutee ki mbiram ndax mbiram gi da cay eh, dugg lépp lu sax ca yonent bi sallallahu alayhi ci li nga mooy sunna moom lu mu lu mu jëf la wala li nga xam ne mooy taqrir la wan ñooñu mooy tandiku yàlla subhanahu wa bokk lii di fitna daal leen di dal wala mbugal gu gu mag fitna gii nii mooy fitna kufr ndaxte képp ku jàpp ne yonent bi sallallahu alayhi gën a xam wala yaa ko gën a ci diin yaa ngi tàbb ci la mooy kufr moo tax malik imam ahmed ci aaya bi ba koy jàngee dafa ne fal yaxdar lazina qaala an amri an tusam fitna dina atadrimal fitna ndax xam nga luy fitna al fitna mooy ashirik ndax ku jàpp ne yow bidaa ca bidaa la muy ca lam lay yóbbu mooy xeeb yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ci digg dem mooy nanka nangoo bidaa goo ngay def day dem ba yóbbu la ci kufur gu leer ñi fata ambal del nga xool nit xam ne dañoo tàmbaloon bidaay naw di ko di ko di ko xeeb bidaay fan leen fan leen yóbbu soo gisee xawaarij yi sax na ci asar yu wér ne ñoom ñi nga ne ñoo génn daal di xeex ali daal di koy rey daan nañu gis ñoom bidaay yoo xam ne ca lay feeñ ci nit ñi mooy bidaay yu ndaw lay wute yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme ni ñuy xadis Abdullah Mas'ud ba nga xam ne fekk na leen ak Abu ñu nekk fa di naan da leen def tasbix eh, nangami yoon da leen takbir nangami yoon mu nekk loo xam dañ ko lu bees la woon ci diine ji sax saxaba yi xamewuñu ko woon ñu kon noonu la ñuy yittal foofu mooy que riwaaye xadis daf ñoo ñooñu gis naa ña ëpp ci ñoom wala bokk ña gisoon mbooloo moomu ñu nekkoon ci bidaa googu noonu ne ñoom yiw rek lañ jubloon ci mbir ma loolu la ñu ab leen masuud da ko ñu ni yiw ca luñ ca jublu mu ne gis na ñoo ñu génn ca nga xam ne ñoo génn ca xeex ak Ali nekk ay xawaariñ ba nga xamee nag ñooñu dañoo boo xam dañu wuti ñoom ak seenu kéefar ak seenu nekk ko koy jullit loolu yóbbu ci fitna gu mag googu mooy daf fitna gannaaw mooy shirk billah génn ci lislaam mooy wute Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy faral di wute Yonent bi sallam soo toppee ay nit ñu bari yoo xam ne dañoo nekk ci biddaa yenn saa yi day génn ci ñoom ay kufriyaat yoo xam ne da xam ni ñi ba ñuy tàmbali seen i mbir nekkul lii moo nekkoon seen jubluwaay nekkul lii waaye nekk ci bida moo doon yóbboo ci fitna googu ndax fitna googu day ba nga xeeb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xeeb doxalinam ndax loolu may bida mooy xeeb doxalinu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xeeb xam-xamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala xeeb li nga xam ne mooy xeeruk yonent bi sallallahu alayhi wa ci yiw ba nga jàpp tamit ngaa def lu ko féete féete si su boobaa nag da ngay dem ba saw gisin yenn saa da nga koy xeeb saw gisinam daa di jàpp ne saw gisin mun naa féete kaw gisinu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga tàbbi ci fitna gu ci fitna ci fitna euh, gu rëy wan bi nag fitna gi nga xam ne moom la imaam Malik daal di bi moom mooy nag li nga xam ne mooy melokaanu waa Euh, waa bida mooy xaa règle bi nga xam ne ca la ñuy tabax nag seen béréb ci lii la ci lii la ci lii lay ci lii lay dellu dañuy gis ne ñoom gis-gis nga waxee mën na mën na koo yëg wala bañ koo wala mu bañ koo bañ ko yëg waaye lisaanu xaali yi la muy wane la muy feeñal mooy dañuy gis ne ñoom la nga xam ne moom mooy la nga xam ne ca la ñu nekk ñoom te saxal ko ci seeni xel moo féete wala moo féete kaw la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon wala bokk la yonent sallam nekkoon li nekk ci téere yàlla beeg sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci jaamu yàlla moo féete suuf ah moo féete suuf loolu xoolal ñi nga xam ne ci gàmmu ñëwee ñu def la yonent bi sallallahu alayhi wasallam def mooy ci gàmmu ñëwee duñu jaaw duñu def lenn duñu yokk duñu wàññi ñëpp dëppoo ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bisu gàmmu ñëwaan daawud yokk daawud wàññi ñi gàmmook ñi gàmmuwut ñëpp d'accord nañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam bisu gàmm moom su ñëwaan mooy bisu judd daaw ci def dara lu yokk lam daan def bi ittifaq amul ku ci werante bil ittifaq dañoo d'accord ci ne yonent bi bi su gàmmu daaw def leen loolu ñëpp ci d'accord am ñu ñoo daal di sos ay mbir ah, ginnaaw xam nga ñu xam ne loolu yéen si ko def mais ñu gis ne ñoom seen xel bu rafet loolu dara ko ci ak jaamu yàlla la waaye dañoo dem ba mbir dina yóbbee léegi ña nga xam ne ñooy def la yonent bi sallam def da leen di xeeb da ne bëggoo leen yonent bi sallallahu alayhi wax ne bëggoo leen yonent bi ñoom d'accord nañ ci ne saxaabi si daaw ñu def lool kon lu ana xeebeel gu weesu loolu ba mbir yoo xam ne yow xam nga ne yonent bi daaw ko def ka nga xam ne moom kon moo dëppoog yenente bi ci la mu doon def mooy lam bañ a def mu bako yow su fekkoon ne sa la ngay def daganoon noon entre guillemets nga dellu wëlbatiku nag la yenente bi nekkoon nga xeet ko war nga xam ne kon sa yoon bi nga jël yoonu yoon bu dangereux la ndax soo demee ba léegi yenente bi nekkoon la xeebaale lay doon ci yow mooy yenente bi doon ñoom xam nañ yenente bi la doon def mooy lundi su ñëwee mu woor jeudi bu ñëwee mu woor nag bisu du anniversaire ndax bisu juddu ak anniversaire juddu bokkut naam anniversaire at la bis mooy bis bi nga xam ne moom nga mu nga judd yonent bi sallallahu alayhi loolu def nga xam ne loolu doon def ba ci loolu nga jël sam xel ca tegtaloo di def leneen lu mu defut di gàmmu am ko anoon ci loolu la yem nga xeebal ko loolu ba nekkoo rek da ngaa sax yow bëggoo yonent bi sallallahu alayhi wa la chekkan loolu fitna fitna mënu ko féete kaw yàlla ci yàlla subhanahu wa daa di daa di musal mara ne ne wàjjuhu assaabi achar mooy fukkeelu poñ bi ak juróom-ñaar te mooy dañeel poñ bi mu di ibtidaa yuxriju diin an tabiatihi samha wa yuassiru mooy lii bi daa day fekk diine mu nekk lu yomb diine yomb la mu daa di koy jafeel day fekk diine mu nekk accessible mu daal di koy kon bidaa dafay jafeel li nga xam ne moom mooy diine ndax diine nekk dafa yomb di da da koy dafay jafeel loolu ndax yàlla subhaanahu dafa dafa légiféré diineem ji te ko ci anam gurlu def ko ci anam gu yomb moo tax yal na yuridu llahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra yàlla na bëgg ci ñun moom mooy ak yombal yàlla fu ñu bëgg a yombal mbir yi moo tax mu jël diin def ko mu nekk diina yomb mu ne wa ma jaala aleykum fi diini min min min min xaraj kon ko ñoo fekk diina jooju mu yomb mu daal ci yokku dara wàññi ci dara kooku day jël diina jooju daal di koy def daal koy daal di koy jafeel ndax lii moo changé na ko ci nature bu nga xam ne ca la euh, ca la euh, ca la ca la nekkoon kon lii mooy juróom-ñaareelu poñ bi nga xam ne fukki poñ juróom-ñaar bi nga xam ne cheikh bi mujjeel na ko mu daal di nag cay teg li nga xam ne mooy mu ne mooy xaatima bi indi li nga xam ne moom mooy euh, mbir yi nga xam ne mooy wane ci ci xel ak li nga xam ne mooy wane ci ci taxi ne diine lu yàlla Euh, wala boog diine lu wala boog luy wane ne lii di bidaa lu ñu ŋàññi la ci ci diine wala am xel xelakum diine ñoo dëppoo ci li nga xam ne moom mooy ŋàññ lépp loo xam ne la lépp loo xam ne bidaa ci ci euh, ci diine euh, kon tam tam mën nañu yemale fii tey waxtaan bi mu des tuuti rek ci li nga xam ne moom mooy li aju ci xaatima bi suñu su ngoone bi ne lay subhanahu wa xam na ay dix ba cinq minutes lay jël même ñu daal di koy eh, eggale mu doon li mooy xaatima bi eh, ndax dañu am dars bu ñu war a taxawee nii léegi ci ci jàkkañ yàlla subhaanahu wa taala eh, mu defee ci tawfiq te defee leen ko barakallahu fikum asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu